dalal nag jàmm ki seen xibaaru mbatiit tey jilee dañ koy def benn say jagleel ko ki nga xam ne moo di Alphonse Raphaël Ndiaye nekkoon directeur fondation Léopold Sédar Senghor nekkoon bindkat borom xam-xam xeltukat ak koo xam ne jot naa liggéey bu am solo jàpp jëm ci lu ñu naan kalante diggante séeréer joola ak alpulaar Alphonse Raphaël Ndiaye moom lee doon koo xam ne gën nañ ko ràññee it te ci fësal woy mbatiit fecc tuus bakk ak lépp lu jëm ci wàllum aada séeréer mu doon it boroom xam-xam boo xam ne jot naa gunge ñu bëri ci wàllum gëstu jot naa it bind lu bëri jàpp jëm ci wàllum gëstu yooyu le rawatina ci wàllum aada séeréer loola waral ni ki tey CACSEN communauté africaine de culture section Sénégal daal di koy delloo njukkal fàttaliku ko ci taxawaayam ak ci liggéeyam bu mu doon def fi ci réew Sénégal askan wi njaboot gi xameem mbokkam waaye it ay boroom xam-xam ay bindkat ay it gëstukat ay universitaires yu bari te teewoon xew-xew bi bokk na ci ki nga xam ne mbokkam deretam la bu ko jege di monseigneur Benjamin Ndiaye di archevêque bu Ndakaaru di fàttaliku jaar-jaaram ak magam boobule di Alphonse Raphaël Ndiaye Raphaël, c'est mon frère aîné. Je viens juste après lui. Nous formions une fratrie. sama mag la woon man maa toppoon ci moom mu nekkoon koo xam ne ku ma jege la ma fàttaliku ci moom nag bokk na ci waxtaan yi ñu doon waxtaan mag moom nga xam ne man dama teeloon dem ci wàllu kër làbbe moom mu nekk ku géeju ci wàllu as aada ak cosaanu séeréer waxtaan ñu waxtaan léeg-léeg doon na sori loolu jàpp jëm ci wàllu woowu ndax xam nga man dama teel dem dugg kër làbbe moom nag mu wéyal liggéeyam ak gëstoom ci wàllum aada ak cosaan looloo tax sax si waxtaan ci wàllum diine dafa doon xumb loolu mag moom tey mun naa wax ne sama mag jooju wax dëgg fa yàlla wéetal na ma loolu moom nag ku ko xam xam ne ku géeju woon la ci wàllum cosaan ak aada looloo tax sax uh, man mii am na lu bëri loo xam ne jàng naa ko ci moom ndax non seulement dafa doon dund way yeeg yu ni mel waaye dafa dem di ci gëstu gëstu yooyu na tax nag mu gën cee xam loo xam ne man sama wàllu bopp te na am na lu bëri loo xam ne ci moom laa ko jàngee. donc il m'a beaucoup appris aussi à connaître ma culture. ci wàllam moom Bakary Sarr secrétaire d'État à la culture di xam ne ne liggéey jaar-jaar ak jeexital bi nga xam ne Alphonse Rafael Ndiaye am na ko ci wàllum mbatit ak wàllum patrimoine doon na loo xam ne lu ñu war a fesel la di nga fàttaliku bu baax a baax Rafael Ndiaye euh, kenn mënu koo euh, xam-xamam bi mu toll kenn mënu koo xayma ndax dafa doon gëstu cosaan ak aada dafa doon gëstu it ci euh, suñu làkk yi làkku làkk wolof làkk joola làkk Sénégal yëpp ci la doon gëstu ba xool làkk yi nan la bokkee lu ñu bokk lu ñuy séddoo lu ñu li nga xam ne làkk yi moom lañuy jëriñ ci tabax Sénégal ci tabax euh, euh, suñu cosaan suñu aada ak cosaan tabax euh, Afrique suñu réew yi kon loolu moo nekkoon benn pàcc boo xamante ne mën nañ ko wax ci Raphaël waaye Raphaël écrit dafa nekkoon koo xamante ne affaire wu wàllu cosaan ak aada liggéey na ci lu bëri ci nu ñuy conserver mémoire ci li nga xam ne noonu la ñuy war a def pour que li ñu am ci cosaan ak aada bañ a rëcc bañ a réer kon euh, bokk na ci liggéey ci loolu beneen bi mooy euh, li nga xam ne moom la bokk ak ñëpp mooy euh, xeex ngir Afrique euh, taxaw gën a am doole pour euh, li nga xam Afrique moom lay war a jox àddina mu jox ko ko ci wàllu cosaan ci wàllu aada. Raphaël Ndiaye mile jot na liggéey lu bëree bari jàpp jëm ci wàllum gëstu niki noonu biir réew ak bitim réew ay mbindam doon na loo xam ne dañ ci taataan di gën a xam ak te gën a ràññee aada réew séeréer ak bu Afrique ci noonu bëri na ñoo xam ne. tànqay nañu ci moom ci gën a fës ci liggéeyam li nga xam ne def na ko jàpp jëm ci wàllum taalif ci làmmiñu tubaab ak ci làmmiñu séeréer niki noonu it bind bu mu bind lim du baobab tungu ne du teew ñu nataal ci ëkk kii di Jean Benoît Bakhoum moo àndoon ak moom ci liggéey bi ñu doon liggéey ci defar boobu la immeuble yu Baobab moom sax Jean Benoît baaxum bile di seede ne Raphaël Ndiaye mile moo ko encadré ci liggéey mémoire am. tey gii ñu ngi ñu ngi xumbal. Ah. bésum Raphaël. Ah. voilà lépp lu mu doon def dafa tënku woon ci mbirum aada ak cosaan. Ah. donc tey gii lii ñu koy defal ni def ko yeeloo. Mm-hmm. def ko yéeloo mm-hmm. ci sama côté euh, li ma jot a defante ak moom lu rëy la parce que moom dem na sax bi moom moo moom moo kii sama directeur moom moo nekkoon sama directeur de mémoire moo ko jiite woon uh-huh. ma rafetlu loolu parce que gën na tax bi non seulement je suis sorti promo euh, major de ma promotion. c'était une fierté pour lui. Ah. et li jóge ci loolu tamit dellu si taw ñoo ñëwaat na ci man pour ñu liggéey ci yeneen surtout l'hymne de Baobab. maa ko defal musique bi def harmonie bi. yi ak chorale yi. Ah. donc tey jii vraiment lu rafet la pour ñu delloo ko njukkal. bokk na ci ay liggéey yoo xam ne sumboon na ko te yeggul liggéey bu am solo jàpp jëm ci jëmmal. taxawaay ak liggéey le poste Sédar Senghor lu ni mel jaraafu commune Joal di ministre Sophie Gladima Sy bi di ko fàttaliku. te Raphaël daf di mbokk bu liggéey lu bari ak Raphaël si affaire cosaan ndaxte ñun géologie bi ak cosaan bi xaw na méngaloo dafa ñu dañuy jóge si xeer di jéem a gëstu lan moo nekk si xeer moom mu nekk nag musicien nekk philosophe moom tam di gëstu par rapport a li nga xam ne mooy li ñu naan li nit mën a gis li nit mën a laal ak loo xam ne nit du ko gis waaye du ko dund mi matériel et l'immatériel sànq na nit mu ne faj tànku nit bu damm si bant ndaxte gis nañ ko ak yeneen ak yeneen discussion yi daf ne discussion yoo xam ne yenn saay day xóot fan la ñu jógee fan la jëm sunu maam yi am na ñu koy gisee diine bi am na nu mu koy gisee muy diine catholique comme diine musulman donc itamit vraiment dinañu manqué lu bari parce que daf di ko xam ne liggéey na si lu bari am na projet boo xam bu ñu amoon ndaxte dañu yaakaar ne tey ku mel ni président Léopold Sédar Senghor dafa jot tey ñu jox ko gëddëm te loolu moom saluté ne à cœur te nañ ne tey yàlla may nañu rek sant li nga xam ne mooy base pour liggéey loolu pour ko mu mel nii ni ko woykat ba woyee suuf dina lekk yàq waaye fi lay bàyyi jëf Rafael Njaay mile jëf na te jëfal na askanam di askanu séeréer loo xam ne de su ko fàttee looloo waral bi ñu koy sargal ni ki tey askanu séeréer gépp ñëw wane li gën a gànjaaru ki seen aada cosaan ngir mun koo delloo njukkal ak kàddu cant yi nga xam ne doomam bile di Leya Ndiaye jot na ko jagleel ñu ñëwoon sargal baayam nu ref ref na war a gidim of mën nañu ko wax moom Alphonse Rafael Ndiaye jookoo njàll a paax fii la ñu ndar keppee seen xibaaru mbàttit yi ñu loon sargal ak fàttaliku bi ñu doon fàttaliku Alphonse Rafael Ndiaye jërë ngeen jëf ci déglu bi votre journal de la culture. Veilleur transi d'angoisse sur tes épaules le poids des tourments et l'inconstance du peuple oublieux, versatile, délétère. Le bien est ton horizon, tu anticipes et les mondes. Les yeux secs, sevrés de somme sur les centres de la solitude. Là, mais heureux, le visage serein, nembé dans les Vous l'aurez compris, ces vers tirés du recueil Luther de légende d'Alphonse Raphaël Ndiaye nous replonge dans la cérémonie d'hommage qui lui a été rendue par la CACSEN, communauté africaine de culture section Sénégal, dont lui-même faisait partie. Alphonse Raphaël Ndiaye, écrivain, professeur, poète aux multiples facettes, les œuvres, le parcours de l'homme de culture, de méthode et de constance sur le cousinage à plaisanterie a été revisité. un homme qui avait à cœur le partage, surtout autour de sa riche culture sérère. Sa poétique qui tient du tous, du bac, du mbilim et autres sonorités et battements de tambour est une poésie vivante, vibrante et énergétique. Durant la cérémonie, amis, familles, alliés, parents, mais aussi intellectuels et universitaires ont tenu à rendre un vibrant hommage à feu Alphonse Raphaël Ndiaye. et ceci devant Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar et petit frère de Raphaël Ndiaye, qui se souvient. Nous n'étions pas du même milieu, je suis plutôt un religieux. Lui, il est vraiment dans la culture profane, j'ose dire, et qui a souvent cherché à me titiller pour savoir quels étaient mes fondements, mes convictions religieuses. Si bien que nous avions parfois des débats assez animés sur le plan de la religion. Mais finalement, un frère dont je garde le meilleur souvenir et qui quelque part me manque quand même. Voilà, il était très ancré dans la tradition. J'avoue que à l'écouter, j'étais souvent dans l'admiration parce que moi étant parti très vite au séminaire, j'étais certainement moins enraciné que lui dans la tradition, surtout que par la suite, à travers ses recherches, il s'y est beaucoup plus impliqué. Donc il m'a beaucoup appris à connaître ma culture. Pour, sa part, le secrétaire d'État à la a Ndiaye dans la préservation et la vulgarisation du patrimoine sénégalais et particulièrement sérère. Et donc, euh, ce que Raphaël représente dans la manière de conserver le patrimoine, tout le travail qu'il a fait, euh, dans les archives, dans la mémoire culturelle, les émissions qu'il a animées, euh, les recherches qu'il a effectuées au niveau de l'université comme dans euh, son expertise internationale ont permis justement de faire en sorte que euh, le patrimoine devienne fondamentalement ce sur quoi les civilisations africaines les civilisations sénégalaises doivent se reposer pour bâtir un État, une, un pays de souveraineté. Homme de culture, Raphaël Ndiaye a été aussi directeur de la Fondation Léopold Sédar Senghor. Et d'ailleurs, à ce propos, plusieurs travaux de recherche et de publication dont il est l'auteur ou l'encadreur ont été revisités. Sophie Gladima Sibi, maire de Joal Fadiout, revient également sur un projet déjà enclenché du vivant de Raphaël Ndiaye. Donc Raphaël, c'est un administré, un oncle, un ami, un frère, avec qui j'ai eu à beaucoup partager par rapport à la préservation de la culture. Et je me rappelle, on avait un projet qu'on appelait le projet Géoparc. Ce Géoparc, c'était de voir quel était le lien entre ce patrimoine culturel, également ce patrimoine géologique. Et il nous a beaucoup accompagnés On le regrette aujourd'hui et nous pensons pouvoir finaliser un projet qu'il avait à cœur, à savoir vraiment valoriser l'héritage de euh, président Léopold Sédar Senghor. Et là, Dieu merci, nous avons commencé les travaux. On aurait bien aimé qu'il soit à nos côtés, mais Dieu en a voulu autrement. Mais n'oublions pas tous ces témoignages de tout son accompagnement. Artiste dans l'âme, musicien et interprète de poèmes en français et en langue sérère, il est aussi connu, entre autres, comme de l'hymne du Baobab. À ce propos, voici le témoignage de Jean-Benoît Bahoum qui a composé avec Raphaël Ndiaye cet hymne. Il confie également que Raphaël a été son encadreur pour ses travaux de mémoire. Je partage le même village que Raphaël Fadiout, uh donc nous partageons aussi la même culture. Uh-huh. Donc euh, euh, voilà aussi ce qui nous a unis. Uh-huh. Donc au moment de, de terminer mes études à l'École nationale des arts, il fallait travailler sur un thème bien déterminé euh, qui portait sur les chants poèmes de Fadiout. Donc il n'y avait mieux placé que Raphaël pour vraiment diriger ce mémoire. Et il l'a fait avec euh, tout le nécessaire possible. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est un hommage que je lui rends à travers cela. Mm -hmm. Voilà, et à travers tant d'autres aussi que nous avons partagé. Mm -hmm. Voilà, c'est un grand homme culturel. Tout à fait. Voilà, qui ne résignait pas à donner qui cherchait toujours à vous pousser vers l'avant, mm -hmm. à vous faire comprendre certaines choses. À l'issue de l'hommage, la prise de parole émouvante de sa fille Léa Ndiaye pour remercier l'assistance. Papa, tu étais bien qu'une source d'inspiration, bien plus qu'une source d'inspiration. Et bien que tu ne sois plus parmi nous, ton esprit vit à travers les leçons que tu as transmises et l'amour que tu as partagé. Il disait Onurevna waragidim ayaof, onurevna waragidim afapof. Chaque personne se doit de remercier son père, chaque personne se doit de remercier sa mère. Et pour nous, aujourd'hui, ce refrain est une manière pour nous de remercier nos parents, mais aussi pour vous tous qui êtes là avec nous, de remercier vos parents pour tout ce qu'ils ont fait pour vous. Nous vous disons Joko Diagne. Ainsi donc, un hommage posthume certes, mais vibrant a été rendu à Alphonse Raphaël Ndiaye, qui écrit dans l'épilogue de son dernier recueil, dénommé Lutteur de légende, Me voici arrivé au terme du parcours de lutteur, ai-je compté sa destinée, sa légende un chemin à arpenter, pour d'autres légendes à compter. Mission accomplie, serait-on tenté de dire, maître Alphonse Raphaël Ndiaye, ad vitam aeternam. C'est la fin de votre journal de la culture entièrement consacré à l'hommage à Alphonse Raphaël Ndiaye, initié par la CACSEN.